salaamaaleykum mbokku internet ibakan TV nah, ma ngi len di nuyu di len ziar tay nak ñu am amal len kan bo xamne ah, bu waxe ci lamb rek da wara wax ñu melni bokku lak serigne nga xamne dañuy genn avant combat di wax ci lamb ñi ño wara wax ci lamb parce que dañ ko pratiquer tundu ko jëfe ko am ci banne am ci nakar ba tekki ngeen mu tok koku moy xadim Khadim Ndiaye l'ambassadeur de Thiaroye sur mère monument wu Thiaroye sur Mer kooku tey bu analyser combat avant mhm. combat bi am ba jeex mu war si analyser wàll je parce que loolu képp ku toog war nga xam ne loolu yoon la ay Khadim Ndiaye ñoo war a wax si euh, làmb ay ñoom Moustapha Gueye ñoo war a wax si làmb ay ñoom Yékini ñoo war a wax si làmb ay ñoom Balla Diouf ñoo war a wax si làmb ay ñoom Ousmane Diop ñoo war a wax si làmb ñi nga xam ne dañoo takk ngemb ba bàyyi bëri ñoo war a wax si làmb ñooñ la ñu war a jox parole donc Ousmane Khadim Ndiaye mbokku internet Iba Kane TV ak waa ah, Sénégal waaw jërëjëf ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci yonte bi sant suma ñaari waajur mhm. di leen ñaanal fañ tëdd ci Touba yàlla suuf sedd ci kaw mhm. te yàlla taas ñu seen barke mhm. di nuyu ki nga xamante ni tey mooy xalif général di kulu murit muy sëñ Muntaxa Mbàkke yàlla na ko fi yàlla yàggal Mbàkke te wér di nuyu suñu buntu sëñ Tuubaa muy sëñ Moodu Abib sëñ Cheikh Mbàkke Daaru Rahmaan yàlla yàlla yokk leeram taas ci barkeem di nuyu njabootu sëñ Abdoulahi borom tër bi yëpp di nuyu mbokk internet yi mm. di nuyu mbokk sénégalais rawatina waa Caaroy géej ci ma dëkk mm. fekk bu baax mm. di leen tiitaroo di leen sago di nuyu Pape Abdou Fall production nga xam ne moo jëm le 15 janvier ah, ci diggante Arafas ñu nga gis Ada Fass fan yi ni mu def sotte ko génn ci mbedd mi Zarko mhm. jóge na Paris ñëw mhm. naka gonoo may dëkk mais maga may daan xam nga mhm. di nuyu ministre sport mi nga xamante ne tey moom lañ parrainé bés bi doomu ndeyam delloo mbatt ci ci guum ca mboy mboy muy Matar Ba sa xarit waaw sama xarit sama kilifa sama ñaari kilifa muy Pape Dou Fall ak Matar Ba yàlla na leen yàlla jàppale ay góor pire ngi noonu Matar Ba ñëw teew sa ñëw teew waaw Matar Ba dafa xeebul kenn xeebul kenn waaye lebal na ma lebal na ma lebal na ku mat a lebal nag barki sëñ Tuubaa mook Pape Fall ah. lebal nañ ku mat a lebal nag di nuyu ñoom Henri mhm. di nuyu As Ndaw Ndukumaan mhm. as ndaw borom du kumaan mam booy jaaw sama xarit mhm. di doomu ndey ma Ba yàlla na ko yàlla defal jàmm ak mbaygan loo mu papa Bada Lo di déglu nag say question Iba Kane ñu wax ci wàllu làmb question bi benn rek la combat Balla Gaye 2 Boy Niang waaw am loo si waxoon avant après ñu gis komba presque li nga si waxoon yëpp a am waaw Boy attaque baaxul si Balla Gaye tey mhm. Boy Niang xaar ko war mhm. mais gis nañ ne Balla daa bàyyi loolu dem mhm. attaque yow nan nga jàngatee combat boobu mooy war ni làmb sport nii la tey fa Balla gay tolloon ba muy daan Yékini ah ka daanoon Yékini tey fa mu toll tey ba muy bëri Yékini tey moom la rakkam jii di Boy Niang toll tey def lam defoon ni moom mu def def ko xam nga. Mhm. kon gàcce ngalaama booy ñaar. Mhm. mais Balla tamit démérité wul ndax def na lu ne ci làmb. Mhm. Balla damay wax ni soxorut ñaanut. mais ñi ko ànd ñi mu àndal. bu seggaatul ay mbiram. lambam dina metti lool. ñi mu àndal ñan la waaw ñi mu àndal. ku mel ni ñoom Boucher. waaw ak keneen ki may bañ a tudd turam. liiru daan nañu si man maa koy seen seen làmmiñ lañ yor mhm. di ratatati di utal Balla Gaye ay noon mhm. di tax ku war a wax Balla Gaye dara war ko ko wax mhm. ku ko war warta wax dara war ko ko wax lamb du loolu lamb du ay coow lamb du ay sinap lamb du nekk di yuuxu lamb ci biir géew bi la lamb bi dafa laaj secret booy ñaa kenn xamalu ko dara diiraa combat bi ñi ñaa ngi naan ma nga France ñi naan nekku fa ñi naan nekku fa loolu mooy lamb booy ñaa dafa dugg ci biir lamb Balla exposé lambam ndax ah. waxkat yi nekk ci moom xam nga ku mel ni boucher ku mel ni boucher ak la ritaan daf leen ko war a jëlee non ñooñu bañ ñëwee ci bàll ba léegi ci la commencé am yi boucher ak waaw natal natal li ma la wax bañ commencé ànd ak bàll ba léegi waaw parce que rasulullah ci la bàll commencé am jafe-jafe yi kay waaw xam nga mais di wax ni lamb mhm. iba lamb léegi ñoom liiru jaan ak boucher lan lañ si lamb du ay waxante lu ñaaw du ay ay lu ñaaw du du du du jébaane ay nit. dëgg la te xamaloo nit ki dara. waxul la dara. nga jékki-jékki commencé génn say wax di wax wax ju ñaaw. te xam nga man damay wax ni man. bu ma amee couleur bu may défendre dama ko am ba pare muy couleur caaru géej. dëgg la caaru géej ma defal lu ne. ngemb ma indil leen fi ndam lu ne. dem ba tekki sama ngemb bàyyi ko fi. ñoom daan damay jàppale ji waa Pikine wala waa Géejawaay. da lay wóor ni kon du ak mbëggeel moo fa am intérêt moo fa am. intérêt moo il faut mu xool loolu. ñu ko toppee intérêt te mënuñu ko indil cent franc mënuñu ko gis ne ñoom Boucher lii intérêt lañ ko toppee Boucher day wax kat Boucher mhm. bu ko dégg naa sax mu naan day former association pour xeexar sëñ Touba yow sëñ Touba daa bëgg mel ni gis ku mel ni yow mhm. yow yaa ngi ca fecc ba yaa ngi ci musique ba yaa ngi ci kenn xamul ci loo ne mhm. ah di dóor fu ne nga bëgg fa dóor hmm. yoonu sëñ Touba ñun ñu koy xeex ñun ñi ñi nga xamante ni hmm. ay murid saadix lañ hmm. gëm sëriñ Touba lépp lu ñu waxal sëñ Touba ñun mën nañ koo xeex faj ko te yoonu kenn lu ci ne xam nga mais di wax ne Ibba lamb waneeti na boppam waneeti na boppam du tax waaw ci combat Boy Niang bi ak Balla lamb waneeti na boppam li tax lamb waneeti boppam mooy Boy Niang détermination bi mu indi ci contour Balla Gaye mhm. bett na ñu bëri booy ñaa ku na xam ne daawul woon bëree nii arbitre fër nga taxaw dëggal sa bopp mhm. xam nga mais Balla erreur bi mu def mhm. mooy attaque bi mu def booy ñaar dafa taxaw rek di ko xaar déplacé wul benn yoon di lewaatoo rek taxaw di ko xaar fixé ko Balla jékki-jékki taxaw jon lu mat ay une minute deux minutes jékki-jékki commencé lewaatoo tibb suuf tëb daw attaqué jiw tëb bi aar na non erreur la foofu mm. jël na fa sax coup waaw xam nga jël na fa ku ci la ko booy ñaa daw takk ci wet. waaw takk ci wet gi bëgg ko sétur bal bal def rotation wet rasu. Mhm. mu dañ mu dañ ñu dawaat booy ñaa di ko dóor droite. Mhm. bal esquive droite bi daw jël jël tànk booy ñaa bi. Mhm. xam nga. te damay gis bal heure boo ko tegalee tànk droite. même bu la songee sax ci tànk droite bi du ci mën dara. du ci mën dara te mbër mën ngaa mën a ñaari tànk yëpp. man de tànk boo ma tegal hmm. boobu laa gën a ay te mbër il faut ñu jàngal ko xeexu ñaari tànk hmm. moo tax toujours boo amee combat hmm. dañ laa indil dañ laa war a indil kuy teg pied droite boo paree ci kooku ñu indil la kuy teg pied droite bon sport au niveau dañ koy pratiquer indi ci xam-xam ndax boo indilee mbër mi tey pied droite mu am problème nga indi ko pied gauche mu mu mën cee bëre kon da lay wóor am na ñoo xam bu ñuy bëree yow même bu buñ tàmmee teg pied gauche dañuy indi pied droite bi te loolu lépp day feeñ ci vidéo yi. Hmm. entraîneurs yi seetaan. il faut que mbër yi bàyyi ci xel. Hmm. Hmm. moo tax man sama mbër kenn du ko mën a canaliser ci leen. ndax lépp dama la koy wax. dëgg la ne la lii la ak lii te lamb ji léegi Iba Kane dootul ay wax. dootul ay sinap. dootul ay nekk fii di coow. dootul ay nekk fii di statut di yuuxu. ay booy bi liggéey na. ay booy bi nangam na. xam nga yooyu yëpp. yow Balla liggéey na si combat bi. ñoo Balla moom wax dëgg yàlla dese naa pare. dese naa. dese naa pare nag wax dëgg yàlla. waaw ah. boo gisee man la dese naa pare. mooy lan bala su pare woon dëgg. Hmm. su ne tànk booy booy ñaa ba cëppat. Hmm. da ngay gis day téye tànk ba rek doo war a crocheté loxo ba. Hmm. mais yéex na gis nga rotation bi. waaw ba mu ne tànk booy ñaa cëppat. ah. pied bi dafa freiné tànk bi bi mu dee ba di ko jël tànk bi dafa mel lu freiné. waaw te kon nga xam ni balla. manqué na résistance. man nag li may wax. balla. su fekkee ne dañ ne dafa am lu ko dal. jàppal ne ci ndigg li la. jàpp ci tànk yi. ci ndigg li manqué na puissance foofu trop hmm. ndax boo dee seet hmm. bi muy siggi sax hmm. ni balla di bi bi ko boy ñee njettee ba balla ni muy siggee pour bëgg a rocceeku ba ni ko booy ñaari plaqué di nga gis ne yaa a quelque chose ñu bëri nañ bàyyi baat ci action bi action bi bi muy bi muy bi muy siggi sax ralentir la am te rapidité boobu dañ ko doon gis ci balla li ci des nag nit ñi naan na bàyyi bëri man d'accord ak moom foofu xam nga. Mhm. ndax Balla dese na. dese na mhm. xam nga ku gënoon baax entraînement. non bo booy ñaa simee ko. Mhm. di nga xam ni carrément booy ñaa mii moom wax dëgg yàlla. xam nga fu mu nëbbatoon. waaw ah. mais pare na. pare na bakkan ñun ñu demoon lamb ji ñu demoon lamb ji yëpp. ku xool booy ñaa. di nga xam ni booy bi am na xar kanam. bu bees. bu mu indi. ci la lambam nag ubbeeku na. waaw lambi lambi booy ñaa. ubbeeku na. waaw ndax ku dugg géejawaay. daan fa ña fa daan champion yi fa ne ak tonoor yu mën a bëree fa ne mm-hmm. ku daan Balla mm-hmm. daan Sa mm-hmm. daan guy gi daan Marley daan Les Deux wax dëgg yàlla daan Sa Kajoor wax dëgg yàlla ñeneen ñi ci ay pambaay te ñu mën a bëri rek la daan foofu ay ndaara na fa ne su leen daanee mais daanagul Marley de Marley muy bëri ak soq est-ce que Marley bu daanee soq du la euh, affaire du carte gi jax musugul daan Marley musugul daan Marley waaw waaw bu soq mm. fi mu ne nii sax euh, Marley mm. pour mu bëreeg booy ñaa des na na yoonam des na waaw dañ waxante dëgg waaw yoon bi lu ci nekk dañ koy teg ci yoon mhm. xam nga mhm. pour mu daan pour mu bëre Boy Niang ndax mhm. Boy Niang bu ñu demee ba ko tëkkalee Modou Lô kon Boy Niang egg na au chemin yàlla na ko ndam li jig mais man nag dara bettuma ci woon ah. ndax xam naa Boy Niang xam yaayam ji ko jur xam papam dégol di nuy Pape Sarr bu bu Pikine ndax Pape Sarr du ñu gën a gore su taxawee na Xaadim damay ñaan sa diggante rëg-rëg ak Sa Thiès yàlla na yàlla may ndey rëg-rëg ndam mhm. man lépp lu ma xam dama koy wax Pape Sarr xam nga moo tax àdduna mhm. euh, yëgante moo am solo yëg-yëg mooy lépp làmb ji nag mhm. mbër mu ci bëgg mucc gàllaaj bi moo baax na gàllaaj bi moo baax na mais entraînement force ak hygiène de vie mooy pee ci mbër mooy pee ci mbër dama koy bëgg entraînement benn ak hygiène de vie. ak hygiène de mooy pied ci mbër. ñëw troisième. mystique doog a ñëw troisième. Hmm. te mystique dëgg dëgg dëgg hmm. suñ ko daan wax. Hmm. mooy sëriñ yi ngay dem. bu kenn jàpp.